sur quel levier il va s'appuyer certainement en tout cas on lui souhaite mu réussir parce que ñun sénégalais ñun ñëpp sonn nañ ci dundu gu cher gi parce que les prix nous échappent depuis très longtemps. Mm-hmm. depuis njëkk yi échappé nañu c'est vrai que le régime de Macky Sall na ci depuis bi fi Macky Sall nekkee. Mhm. ba 2020 la ko commencé rëcc. Mhm. alors li ci des également ce sera autour euh, vraiment de moom ban taxawaay lay am am vis-à-vis de la nation gestion vis-à-vis de la République. Mhm. parce que là également il faudra des réformes profondes. Profonde, oui. il promet des concertations pour la redéfinition ou l'évaluation des politiques publiques. Publique. il mm les veut beaucoup plus efficientes. on verra également parce que foofu tam bu fa Euh, à notre avantage parce que benn instant tamit euh, peuple bi sonn na ci yu bare bare. très bien Fabrice Nguema les urgences donc sont là on espère en tout cas que euh, du ñu politiser li nga xamante ni actuellement moom lañ ko jox mm, di réew mi Fabrice avec les grands chantiers justement de Bassirou Diomaye Faye ak refondation comme ni ko Pierre Simon Faye waxee léegi des institutions ak allègement du coût de la vie. mais globalement tout est prioritaire mm-hmm. même les relations entre le Sénégal et les pays voisins, les relations, en fait, mmh. l'immigration clandestine et tout ça. En tout cas, euh, moi, man, donc, au mot d'entrée de jeu dans une télé, je crois, il disait que bon, on lui a posé une question très pertinente, mmh. une question chirurgicale. Mais à quel moment tu t'es senti, tu as senti que tu pouvais être président Il a dit dès l'instant où mon nom est apparu au niveau du conseil. Mmh. <laughs> Donc ça veut dire qu'il sait de quoi il en est. Mmh. au regard même de sa conférence de presse, ce qu'il a dit, ce ne sont pas des balivernes. Il comprend aisément c'est quoi la mission d'un président de la République. Parce qu'il faut rappeler, président de Femme Vision. Et maintenant, il faut donc même le choix des hommes aussi. Apparemment, dans son discours, euh, on a senti que la question du choix des hommes, vraiment, ça va être aussi quelque part son, son instrument de, ça de, des de, hommes, oui, de, de travail. Gouvernement, oui, oui, oui, ouais. de travail. Mm. Donc, euh, capable à venir, mais après, ça finit en, en slogan, dire, en autre boudin, mais ça <laughs> finit euh, en slogan vague et creux. Mm, mm. Donc là aussi, il comprend aisément les défis Bernard. Il est de l'administration. C'est un fonctionnaire. mais c'est-à-dire c'est un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire d'élite d'ailleurs, mmh. inspecteur des impôts et domaines. Mmh. Donc il comprend très bien les choses telles qu'elles doivent se présenter à lui. Donc, problème Amour Forfou. Mmh. Maintenant, c'est dans la transformation de la vision en acte. Hmm. C'est là-bas le problème. Venez avec les bonnes intentions et parfois aussi il y a des facteurs externes qui viennent et qui pourrait probablement perturber un peu les choses ou bien votre, votre volonté de changer les choses. Oui. Et aussi, et surtout, vous savez, on a besoin d'un chef d'État visionnaire, mm -hmm. on a besoin d'un chef d'État qui sait prendre des décisions, on a besoin d'un chef d'État qui a de l'initiative, on a besoin d'un chef d'État qui s'entoure des hommes des hommes dignes de ce nom, ouais. mais aussi un chef d'État fort. Presse, surtout très fort. Un, un, un chef d'État fort, parce qu'il y a forcément des pressions mm -hmm. qu'il subira. Mm -hmm. Donc là aussi, il, il, va falloir être fort. D'ailleurs, je prends souvent au mot Ablaïwan qui disait que non, il faut souvent, quand on est chef d'État, la chose dont il faut toujours faire attention, c'est d'être prudent

ñëpp jaajëfal leen ñi nekk ci cargot yi sama mbokki mool yi nga xam ne ñoo ngi ci géej gi duñu suivre ci géej gi foofu ñu ne euh, ñi nga xam ne ñoo ngi nekk euh, dem beex dikk bi transport en commun ah sa mbokki mool yi waaw ñu ngi ci géej gi non da nga leen gëj a tudd ok ah, man damay tudd sama mbokki mool yi ñi nekk ci gargot yi transport en daa dañ campagne campagne bee fi nekkoon. Hmm. moo moo ubbale bopp ñëpp. <laughs> campagne bi jeex na nag. léegi moo tax liggéey rek liggéey rek liggéey euh, rek. suñu mbokki moo li ñu nekk ci gargote gi ñuy tëdd seen i kër di seetaan jamono ji waa diaspora ñoom ñëpp nuyu nañu leen et puis ñu xool kan moo yëg ci kaw tribune bi instant bi ki yéeg si kaw tribune bi ku ne noonu. moo ne noonu ca kaw Basirou nee na gouvernement am dana ci boole waa diaspora. waaw Basirou Diomaye fay waaw le chef de l' état son excellence. Euh, dafa def discours bu nga xam ne dafa dalal xel. Mm-hmm. dafa dal xel du sa dalal xel mais dafa dal xel. Euh, parce que boo waxtee réconciliation. Mm-hmm. ñun loolu yëpp dañu ko yittewoo. parce que réew mi toll na woon na foo xam ne kenn xamatul woon kan mooy kan. Mm-hmm. defante bi mel ni tulleex màlle. haine bi amoon ci xolu nit ñi tey nga woote réconciliation sant yàlla. ouverture ndax nee na fi ñu jëm focus mooy lu suqali réew mi suqali réew mi. ngir ñu liggéey si képp ku mu laaj ñu toog ak moom nañ ko def ba ci opposition moo ko wax démb donc kooku tey amul benn xarma yàlla bu nga xam ne ni peut-être gis nañ ko ci déclaration hmm. sant yàlla nguur nag dafa am ay réalité yàlla yi xam ko du toog tey solution am tey nañ ko may diir mu liggéey nañ ko may diir mu liggéey parce que nag dañoo am benn euh, type citoyen bu nga xam ne ni daanaka euh, dafa exigent hmm. mais nag il faut ñu may ko diir mu liggéey moom ak équipe bi nga xam ne dina ko def nee na yàggatul dara fan yi dina teg gouvernement am. incha allah ah incha allah ñu mu def casting am. te puis ñoom ñoo ko xool si campagne bi nekkul séddoo gâteau. <laughs> comme ñi nga rallié woon ni ñëw naan damaa ñëw sama wàll laay laaj. <laughs> ñoom nee nañu loolu taxu leen jóg. loolu dañ daal na xel. Mhm. a comprendre. Mhm. Euh, Macky Sall bu dee bilan matériel. Hmm. peut-être amuñu dara luñ koy wax. non non bilan matériel. bilan immatériel. oui. les libertés. les la bonne gouvernance loolu lañ koy hmm. loolu le peuple sanctionné le régime de Macky hmm. Sall. moom nag kon na jàpp ne. looloo tax tamit ñu fal et ses priorités. le temps que muy peut-être mën a def un bilan matériel ce sera d'abord se pencher sur li mu war a mën a def di matériel ba mu dalal xelu nit ñi. mooy réconciliation bi. waaw yeneen yi tax ba ñu sanctionné ñee. ci la war a concentré pour rassurer nit ñi doog a mën a teg tànkam pour teg ay yeneen. jéego voilà lu am solo ñu yegg ci kaw tur bi kon Bassirou Diomaye Faye la ñu fay fekk <laughs> askanu Sénégal ñëpp toog jaar loxo moom c'est que Yacine laa xam lu muy ree jàmm rek laa ah. woote di. ñu nuyu la dugg tigi. dugg tigi ñu ngi koy nuyu. Ah, inconditionnel la bokk. ñu ngi koy nuyu waaw ñu ngi koy nuyu. madame Diagne. Ah, waaw madame Diagne est-ce a. ah madame Diagne ñu ak Marito Niane. moom itam le professeur de chaire. titulaire titulaire. ñu koy nuyu. borom Dakar Bango. première sortie du nouveau président démb nag sunu président bu bees bi nga xam ne. bu ñu dajji ci paquet président xale Diomaye rassure la France ndax nag naka la déclaration bi rot waa France pré Emmanuel Macron daal di yónnee di ko jaajëfal ba pay noppi di ko xamal ne nag noppi nañu ngir liggéey ak yow ci tuitu euh, Emmanuel. ku bind wolof kan moo bind bi laa bëgg. ah dañoo <laughs> am mais moom mos na bind tuuti def mos na def tuuti euh, la première fois <laughs> man man fu mu nekk nii. France sax léegi dafa Sénégal. parce que day tuité sax <laughs> mais loolu da ko waroon vocal quoi aussi. loolu da ko waroon de vidéo. France moo ñu bëgg. da ko waroon de vidéo. wolof de par force. la Sénégal. la France koo bëgg mu ne man Sénégal laa bëgg fii laa ko def <laughs> Emmanuel Macron nag daanaka nag discours ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye euh, dalal na xelam ñoom ci boppam noppi nañu ngir nag liggéey ak euh, Sénégal la déclaration du président Bassirou Diomaye Faye qui a fait réagir son homologue daanaka français Macron prêt à travailler avec le président Bassirou jaru nga naan pare ñun kay ñooy xool ndax ñun pare nañ pour liggéey xew wala déet loolu amul problème yow toogal rek xaar. Ah, Emmanuel Macron non ak ak gouvernement bees bi dañuy xool. non dama ne France da ngeen di liggéey ak moom par force. mi ngi si de. mais munu ci dara. kañ nga ko gëj a dégg France dégage. <laughs> France dégage mais wuy ma France da ngay liggéey moom par force. léegi nekkatul France dégage da nga foog ne ne da ngay ñëw contrat rek dindi France. sànq moom laa la euh, pour euh, gouverne euh, dafa am ay réalité état dafa am ay réalité li nga diggee woon ak li mën a nekk après nga koy xam boo xësee ba toog di nga xam ne lii mën na ne lii mënul ne. mais moom il faut sénégalais yi nag xam il faut sénégalais yi xam loolu bu leen ko paraparaxee bàyyi leen ko mu liggéey rek. fu mu nekk nii euh, Franck Emmanuel Macron moo moo tiwite di koy jaajëfal di ko xamal noppi nañu pour liggéey ak yow xibin yéen kaay daal di dikkaat ne ko nag Bassirou Diomaye Faye. Mm-hmm. son excellence. xamal ne li jàmp ci réew mi bari na. son excellence Harry ari non du ari de ñoom kii séeréer agara agara agara agara agara agara agara Bassirou Agara xoolal séeréer. xoolal séeréer séeréer mi si. Bassirou Agara. Agara bu leen bind benn problème. <laughs> kon nag fu mu nekk nii réewum Sénégal comme yaram ak mànk. problème nag plateau matinal bi liñ ci <laughs> <laughs> fii mooy tribunalu Ndakaaru. moo tax ku fi moo tax éléments yi ku fi jàll rek da xam naa day toog këram di xool naan tey li may waxal. <laughs> nee nañu ko yow Bassirou Diomaye Faye président. Hmm. président xamal ne kon réew mi comme yaramu ak màggat. foo ca laal day metti te lii gën a jàmp nag moo di dund def bii.